Adja Ndumbe ak Ndeye Marème Seck ca Yaraax ki ko ñu seeti leen Ndeye Marème yow foo nekk dikkal laa ilaaha illallaah yow mama <laughs> ah, mama indil ñu at indil ñu attaaye bi yow ko ma natt bi nga xam ne moo am démb hmm. dama ko trafiqué xam nga yow dama xam ne ne sa borom kër dafa soxla moo tax ma teggil la waaye waroo teggi xam nga ne waroo teggi xam naa loolu bi ajaa am ni ma war a teggi mais dama laa teggil rek ci xam waroo ko teggi wuy ma naana bi toj koñ bi eh, eh naana bi bu bul guux naana baa ngi toj koñ bi defal na góob bi mu am moo jaaxal ñëpp ñëpp ñëpp góob gi daal dafa manqué ci koñ bi sax. xanaa du ngun ngun. géej gi lii kay kenn xamul lan la kenn la man daal dama koy naan rek. Eh. damay nelaw a nelaw nelaw seen kaaba ga ne ko ci pëyi pëyi ko ci yëngalal déedéet bii kay ëpp na ordinaire bii kenn xamul lu muy saf dafa am guugoo xam ne kenn xamul la la xale bi daal bu rombee ci koñ bi hmm. paa yeeg ñëpp koy jiiroo waaye tax dafa manqué bàyyi mu yebbi bàyyi mu yebbi yëngal ñu def ko kon tubaab bi dañ koy defee ci santé <laughs> hmm, gis nga guub bi gis nga guub ëpp na ëpp na ëpp na ëpp na yow la hmm. xool yaale ko ko hmm, ah. dee hmm. ko yaale nag parce que yaale bi dee ko eh, eh, eh. Hmm, ah. waay waay waay waay. yaa ngi kii bi mi ne la ku biddante. ku biddante. ay naana gi yéex naa dugg ci koñ bi. mooy yow imaam laa mu ne ko imaam man déggu ma ne dee ma mu ne ma tëdd rek nelaw. Ah. <laughs> mu ne ma tëdd rek nelaw. <laughs> démb ba kenn julliwul ci koñ hmm. mu ngi sekk sama xel. dem naa màkk te eggu a kaaba ga <laughs> maa nga aju. waay ajaratu ndembe. yaay la ko yaay la ko. kuy kuy kuy kuy kuy bay li. oui man la. naana baa ngi naana baa ngi toj Eh, natt bi nag naa la xamal dara natt bi boo tegee na nga jënd xaj rey ko man maa ngi def maa ngi palaane sax xar laa bëggoon ne xaj. volet mag man ma dem ba ñëw. naa na kii rek man na aji ba aji. <laughs> Adja Fat Adja Marème Seck téye ma. ah waa lii moom naa na kii moom ànd ak na la faramata ba ndax de man de maa ngi ci eh déedéet bul ko teg yéeyaale ko. Ah. waaw. Ah, ah. gént di la yaa eh, eh, maa ngi mel ne kuy sànni jamara. <laughs> yow léegi ku bi yow. yaa ngi sànni jamara yaa intellectualisé yaa sax yaa intellectualisé sax. laay laay li daa. maa ngi aju. ah ñu ngi may at. laay laay li may teg tagal. gis nga ne lii boo ko déggee makka dem sànni jamra sa minam. laay laay li laa nga xam ne ma ma kamiti. li nga xam ne ma kamiti. maa ngi ca poron doole ya. yaay yaay maa ngi ca faramata ba ndax aali penn ca kaw. aji ma yow aji ma mel ne kuy aji maa nga yow aji ma maa ngi aju. maa ngi aju takkal ma sama bopp bi. <laughs> gisuma la takkal ma sama bopp bi. naana naana naana na. sama musa bi daa tekke. aji ndamay sama musa bi daa tekke. yaakaaroon ne kii mën naa faj corona. ah ca kaw.